je ne pense pas que lii Fidèle. ko la première chose il faut que nous euh, clarifions les rôles kan s'occupe occupé wu assainissement kan moy occupé wu eau pluviale mu leer il faut lolu pourquoi le ko Pourquoi le ministère collectivité territoriale agence de développement municipal ci mom la relevé mi ngi liggéey ci wad inondation nga jël euh, ministère de l'urbanisme mingi ngi ci waxuwoo ministère de l'eau et de l'assainissement nga xam ne moo ci gënoon a jekk pour gérer ko. mais moom dafa mel ni loolu liñ koy gis bëriwul. te ci mbir mi depuis mbir mi commencé ba léegi. moo lay wane ne y a quelque chose qui ne marche pas. conflit de compétence la wala lan la. Ah, mais kooku ñiy joxe rôle yi nan kala laa defee rôle yi mu leer nañ af mbir daal lenn la moo tax man lan créé benn structure boo xam ne loolu mooy liggéeyam parce que gestion au pluviale. Ah, dafa ministère de l'eau et de l'assainissement mu ngi fii kay c'est-à-dire que normalement moom moo waroon toppatoo loolu bon xam nga bon ministère de l'eau et de l'assainissement ci yoon. waaw bon mom mom mom moom moo waroon jiitu quoi même bu dee chef de file waaw. office national de l'assainissement du Sénégal. ñu jox ko ay moyens parce que aussi ñom amuñu ay moyens ñom bo leen waxé duñu wax man fi am fi am réseau la gérer fi ma amul réseau gérer mako bo dé xol même ci banlieue ba do leen gis mais fi am réseau muy Dakar da ngeen gis ñuy gérer il faut jouer la transparence jusqu'au bout boo nee def naa lii nit ñi di ci dute am nga journal euh, un journal public muy le soleil excusez-moi de la publicité mais nga génnee ne ONAS lii la dépenser réaliser na euh, cité ñu ñu xob xam nga lii ñë ñë fa dëkk xam na ne wala amul mais nga génnee ko mu leer nañi nga ne montant bi lii nga calculer tout le monde sait calculer mais y a rien à cacher ils n'ont moi je suggère que ñu génnee dans un journal ne lan def ONAS ne lii laa dépensé ADM ne lii laa dépensé keneen ne lii laa dépensé buñ ko bolé muy montant bin ñu avancé parce que montant bi chiffre buñ joxé joxe daaw ñu leen ko jox il faut pas que ñu féew ci li leen jox nan ko publier transparence dafa war ci lepp muy marché public muy lu mu ta doon il faut publier nit ñi dunoo war a xam buñ xamul nak moy lool moy indi ay interrogation ñuy wax li ñi di wax la mais bo publier ne li la bi fii euh, Abdou Diouf def na xam moom mille forages Abdoulaye Wade ne ko kii ñu commencé di génne ci journal bi né def nañ forage sangam sangam donc liste forage yépp la joxe bien am na forage yo xamné ne amul ay dëkk amul forage sa nañ leen mais ñom jéem nañ sax def exercice génnee ne dëkk yi ñom forage ak forage bo fa né mais li ay c'est de l'argent public nañ génnee fuñ ko def ñu publier ko dans le journal chaque jour ñu génnee liste bi nit ñi gis c'est aussi simple que ça on n'a pas besoin moi vraiment de discuter sur ça moi je je je je vois je crois je ne vois pas j'ai le, le, le droit de douter.